murtajan minnatun lana jariun aouzu billahi min asheytaani bismillahi rahmaani rahim mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuy te di leen siyaare ñu dellu siwaat seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 actu tey ji ñu dellu siwaat ci neen ko baaxoo def nag di ànd ak yéen di waxtaane ñenn ci mag ñu baax ñi rawatina njabootuk Serigne Touba gu góor gi ak ñu jigéen ñi tey nag ñu fas yéene waxtaane kenn koo xamante ni jàpp naa ne bala noo tudd aw turam sax ñu ci bari seen xel dina dem ci moom mu di Cheikh Abdou Lahad Mbacké ibnu Xaadim Rasul euh, wala ñu wax Cheikh Abdou Lahad mbakke taalibe seexul Xadim jàpp naa ne tur woowu bokk na ci li mu ko gën a bëgg mooy doon taalibeb Serigne Touba bu Serigne bi nangul ak taalibe ñu ngi ñaan sunu jataay bi lépp lu ko Serigne Touba nanguloon defal ko ko ci aw yiw yàlla na ci boole jataay bi te dolliwaat ko ca boppam ak xejj ak ngërëm gu mu saxal ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñuy ñaanal njabootam gu góor gi ak gu jigéen gi Serigne Sidi Mbacké mi nga xam ne moo di ab xalifaam di ñaanal bu baax Serigne Moustapha Mbacké Cheikh Serigne Cheikhouna Mbacké ibnu Cheikh Abdou Lahad di siyaare njaboot gépp Serigne Mahmadan mu Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñu ngi koy siyaare soxna May laxaat di siyaara soxna ma asta ak mboolem ñu bokkal sëñ Abdou Lahat ñëpp rek ci ñu góor ñu jigéen ñi ngi leen siyaara te nag ñu bëgg a waxtaanee jàmbaar jooju xam naa danañ wax tuuti rek wax gane àddunaam wax ci yooyu waaye jàpp ma ne loolu lu itteel dëgg-dëgg lay doon waaye li gën a itteel mooy liggéey bi mu doon liggéeyal sëñ Tuubaa te bëggoon ñëpp royko ci ñu liggéeyal ko xam ngeen ne Sëñ Abdou de bi mu feeñee jamono mi ngi feeñee ci njaareem ci dëkk boobu nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko tuddee bu xotul mubaarak doon pàkk boo xamante ni pàkk bu laab la waaye pàkk bu barkeel la boo xamante ni ñu bari wax ne 1914 ci la gane àdduna foofu ci njaareem ci waajur wu sell wu mag ñu koy wax soxna Mareema Jaxate waaye ki nga xam ne moo di waajurum bu góor mooy sëriñ tuuba waaye doy na sëkk ñu tudd waajurum wu jigéen li tax ñu tudd ko bokk na ci li nga xam ne Serigne bi daf koo feeñal ci ñoom sëriñ bi sëriñ Abdoul Ahad Mbacké wax borom daaru ne ko nan ma wutal koo xamante ni ñoo xamante ni mosunoo lekk lu dul seenu ñaq mosunoo dunde lu dul seenu ñaq waaye doon ñoo xamante ni tamit ñu sell lan ci seeni jëf ci seeni guddi ak seeni bëccëg loolu doy na ci ki nga xam ne moo di sëñ as sa Jaxate bokk na ci lew lu lew ak dunde lu lew bokk na ci fa mu doon tukki dem bi mu demee yàlla dogal mu yóbbaale woon sangalam ngir di ko lekk di ko dunde bi mu demee kam doon toggloo ne ko toggal ma sangal soo xamante ni ab laax lay doon bu woyof kooko dem ñulug bi mu ñulugee togg laax bi bi mu toggee laax bi yàlla dogal bi ko sëriñ Mor Asta Jaxate xéewloo ba noppi di waccu bi mu dikkee laaj soxna si ne ko lii nga doon togg xanaa da nga cee def dara mu ne ko waaw mu ne ko bi ma ko ñulugee de ñulug bi dafa xawoon na ëpp ma wutaat seneen sangal def ko ci looloo tax ma lekk looloo tax loolu laa ci def mu ne ko waaw kay yow yaa ma lor ndax gis naa ne bi ma ko lekkee yëg naa ne li ma lekk doonul sama ñaq moo tax may wëccuwaat nii xam ngeen ne kooka nag te wolof yi dañuy wax na lu lewut du law biir bu ci rekk ràgg xam ngeen ne nit ñu baax ñi noonu lan def Aboubacar Seydina Aboubacar yoroon na benn jaamam boo xamante ni wala bu mu yoroon boo xam ne daf ko daan toppatoo la ay lekk yu mu koy jox ci weeru koor sax nga xam ne bu dog jotee mooy dikk jox ko Seydina Aboubacar boo xam ne daf ko jëndoon. yàlla dogal su joxee Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar dina ko laaj ne ko waa lii foo ko jëlee mu ne ko waa damaa taxane woon jaay ko damaa defoon nii damaa def nànkam wala ci sa alal laa la ko jëlale Seydina Aboubacar lekk. ba benn bis ak koor ñëw Seydina kër yendoo koor gu metti dikk bi mu dikkee laaju ko daa dikk rek daal di lekk noonu mu woo waa ji ne ko waa yow kooko ne ko waa man damaa gis saabu bu ma la mosaan a jox lekk yàlla dogal na danga may laaj ne ma foo ko jëlee te bii dama la ko jox rek nga daal di koy lekk laajoo ma dara mu ne ko waaw mu ne ko foo ko jëlee mu ne ko lii de fi ma ko jëlee mooy bi ma duggagut ci lislaam man dama daan gisaane gisaane am ñu ma gisaane loon nag ñu yore loon ma ab bor ma taseeg ñoom man sax boobu mënuma woon a gisaane waaye boobu ak yoon naa ñu yore loon ma bor ñu joxoon ma ko yun ma ko fayee nag ci laa la jëndal soow mi Seydina Abubakar dafa jël loxoom dugal ko ci put gi di wocc di wocc ba lépp lu bokkoon ca soow ma deñ kon loolu liñ ciy jublu mooy nit la woon koo xamante ni ay njabootam ay fameem xamuñu ñu lut woon lekk lu lew ak jaamu yàlla ak dunde seenu ñaq te yonante bi salaa salaam nee na nit dugalut ci biiram lu gën a aw ñaqam lu mu dem ñaqi ko aw nit dugalu ci sëñ nag sëriñ Tuubaa tuddee ko ki nga xam ne moo di Abdul Ahad ki nga xam ne wax nañ ne bi mu ko tuddee sëriñ bi dafa wax ne ku man aw turam doo lakk nga xam ne magi njaareem yi ñëpp dañ doon wax ku ci nekk di déglu sa moroom di tudd turu sëriñ Abdu Lahat yàlla dogal wax nan ne bi mu ganee àdduna sëriñ Tuubaa li mu njëkk a wax dafa wax ne am naa ci moom yaakaar am naa ci moom yaakaar xam nga sa doom ji soog a gane àdduna ayu bis amago ko wala mu ñëw nga dikk nga ne am naa ci moom yaakaar ngir di sedd ëllëg lam la war a defal sëñ Abdou Lahad baat boobu bi mu ne toq ci noppam ñu wax ko ko dafa wax ne yaakaari sëñ tubaab bu ma ko naree tas damay du ma ko fekkee loola tax na bi mu dikkee toog xilaafa sëriñ Tuubaa ak bi mu koy laata toog léppam ay guddeem ay bëccëgam nekk ci taalibe bi nag li ko ñoroon mas na noo séentu fii weer ca dëkk bu mu nekkoon kàbbu gay la wala daaru salaam bukki barga walla fenn <coughs> waa penc mi jikki-jikki rek di wax naa weer wi feeñ na weer wi feeñ na sëñ Abdu Lahat daal woolu ca pénc ma ne bu ma ko fi déggati ñun dañ ñuy gisal weer waaye duñ gis weer sëñ Fàllu moo ñuy gisal weer kon loolu ci taalibe la ak kiyam loola tax bi mu ganee àdduna du taxaw ci foofu jàng alxuraan bind ab kaamil jox ko sëñ Modou Moussa bokk na ci la mu njëkk a def ci sëñ Modou Moussa mooy la nga xam ne dañ koo dencoon mu bokk ci seen wàll bokk ci loo mi ne miraas lañ koy tuddee ci sëñ Touba ba mu toogee ba xàmmee di jooram ak càmmañam ca la dem ca sëñ Amsatu Jaxate ne ko wala sëñ Mbàkke Jaxate ne ko li nga xam ne dama ko moomoon maak sëñ son yu boog samay rakk dama bëgg loola ngeen jox ma ko nee na biñ ko ko joxee mu dem lépp jox ko sëñ Modou Moussa ne ko defal ma ko ci liggéeyam sëñ Touba jàpp naa ne sëñ Abdoulaye ak ndawam ci la tàmbale yàlla nag defal ko ay nijaay yu baax yoo xamante ni taxawu nan ko ko mel ni sëñ am satu jaxate ak sëñ mbàkke jaxate ñooñu nga xam ne ay nijaayam ndax nit <coughs> bari na looy am loo xamante ni dégg nga wala fi wax naa nit euh, bu amut nijaay ci mbedd mi lay déggee waaye yàlla may ko ay nijaay yoo xam sëñ Tuubaa leen yaral seen bopp jox ko ba koy jox sëñ am satu ak sëñ son yi bu ko joxewuma la ko ngir dangay ngay seeni nijaay wala day aada may jox sama doom nijaay déedéet daa am lu ma defoon ci yow te amatuma jot gi ma def ko ci te naa ne loolu rëccut ma bëgg nga defal ma ko ci ñoom sëñ Amsatu jël leen def ko def ci ñoom loola taxawu leen taxawaay boo xamante ni bu yéeme la loola tax na njaboot ga jàpp naa ne ku ci nekk gis na seen taxawaay ci liggéeyam sëñ Touba sëñ Abdou laat nekk fii di liggéeyal sëñ Touba ay guddeem ak i bëccëm sëñ son yi bu nekk fële di liggéeyal sëriñ Touba ci alxuraanul karim ñu seq ko ñaar yooyu jàpp naa ne moo am sëñ Abdou Lahat mas naa ànd ak sëñ Amsatu moom daaru muxti ñu dem ca tool yi mbubbam yu baax yooyu mu daan sol ci liggéeyal sëñ Tuubaa dugg ci xaaxaam bi mu ñëw toog sëñ Amsatu ñëw di ko sëñ satu ñëw di ko fu sikkil xaaxaam bi mu ne ko Amsatu looy def nii mu ne ko man kat xaaxaam bi laa dindil mu ne ko xanaa xamoo ne doomi soxna li ñuy mbubbam day taq daa ak xaaxaam maanaam diggante jàng ak liggéey mag ñi loolu lan daan def loolu nag damaa jàpp ne sëñ Abdoulaye daf koo séddale sëñ Sohaybu bu nekk ci daa ji moom mu nekk ci xaaxaam bi loola ci la nekk nag mësul jóg ci bëgg sëñ Tuubaa ak taxawu sëñ Tuubaa sëñ bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy xamle doomi sëñ Tuubaa yi ñooy ñan ban martaba lan am doomam yu góor yi ak yu jigéen yi mu yëg ne fii mu toog ñoom ñëpp ñoo ci bokk benn place la boo xamante ni te loolu bi muy toog ci tàmbali bi am ñuy nelaw ci doomi sëñ Tuubaa yi mu daal di ñaan ci sëñ Tuubaa daal di ne ko maa ngi ñaan képp koo xamante ni war na maa wuutu ci béréb bi maa ngi ñaan bu fi jóge feeg jóge mu fi jóge maanaam li fi sëñ Abdu toog lépp genn góor goo xam ne war nga koo doon war ngaa toog fi mu war a toog jóge woo fi xanaa ñu jigéen ñi ñoo fa doon am ñu ci bàyyi ko ak ñooñu waaye ñu góor ñi daa ñaanoon sëñ Tuubaa ko feeg maa ngi fi nekk képp koo war ngaa toog ci sama jataay bi sa jataay bi bu fi jóge loolu yàlla defal ko am na ko sa dikk sax ne dama gént <coughs> sëñ tubaa am kum soxla ci njaboot gi mu ne ko yow mi nga xam ne yaa ngi gis sëñ tubaa di wax ak moom teg ma koo waxal ne ko man mu jële ma fi te bàyyi fi kooku ngay wax ne da koo woo xolo bëgg sëñ tubaa gum fi bëgg bi mu fi toogee tamit dafa wax bi muy liggéey jumaa ji di liggéey yokk bi dane nan ko gaawal bi muy ubbi yokk bi di ko inigiré booba matut waaye dane fi mu toll maa ngi damay ñaan sëñ tubaa la mu dundoon jege naa ko te bëggumaa weesu sëñ tubaa la mu dundoon ma koy weesu bëgguma ko ëppale lu ma dund ci àdduna kon loolu jàpp naa ne bëgg sëñ Tuubaa ak doyloo ko bokk na ci lim ko liggéeyal daaray kaamil ji nga xam ne bi mu toogee rek la daa tàmbali def daaray kaamil liggéeyal xam ne sëñ tubaakat ginnaaw moo waxoon ne kansul kitaabi wal xadiis wal xadab euh, ne moom alxuraan mooy ab toolam mooy léppam kon na ko wutal fu mu defal daal wut kër sëñ wut ab daare kaamil liggéey ko wuti nangami million dem wuti ko ci bitim réew ay këy ay ay téere mu jënd ko def ko ci bibliothèque ba ba noppi doomam yi ak sëtam yi mbokkam yi fi nekk di ay doomam ak ay nangam mu ne képp ku bindatib kaamil nan ko dugal indi ko ci kër sëñ Tuubaa gi di bind lu xasida yi sëñ Tuubaa yi woy yi nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop almasir yu sëñ Bay Jaxate moo ko woy yooyu yëpp mu dajale ko bind lu ko wut ay band def lu ko ci dajale yoo yëpp wax na ne woy sëñ Ibrahima jóob masar yi bi ñu koy kii sëñ Abdu Laat daanaka lu ci bari fekk na mu mokkal ko ba loola ñu ci bari moo leen dicté sax ñu bind ko sëñ Bay Jaxate lim ci mokkaloon daanaka ëpp na junni ñaari junni bayit yoo xam moo ko daan woy ne woyi sëñ bay Jaxate yi kat li tax ma wutlu ko bëgg ñu dajale ko def ko ci bànd ak daje ko mooy dama xam ne nit dina àgg foo xam ne kenn dootu ko mën a tee wax dëgg nit nag bu àggee fa ko kenn du wax dëgg dañ koy wax day wut dëgg mu teg ko ci wetam kon moo tax bànd yooyu mu dajale woon ko ci teg ko ca sëñ bay Jaxate moom walla kenn nettali sëñ bi muy gën a doon kone dem na ci moom di ko gane ci yendu fa ba ngoon bi mu demee gisut sëñ Mbay Jaxate jàpp naa moom lay doon gisu ko ba mu naaj ba naaja naaj ba ca ngoon nga sëñ Mbay Jaxate laaj ko ne ko loo fi doon wut mu ne ko ah man kay dama doon dox rek pour mbokk yi xamanteeg mbokk yi mu ne ko demal nga nekk ci lu nu xam buñ la waree xam bu buñ la waree xam bu heure boo jotee heure bi la waree xam dinañ la xam demal nekk ci lu nu xam buñ la ñi la war a xam buñ la waree xam dinañ la xam. kon loolu ab dénkaane ba noppi ne ko nag dégg nga bayit yam ko dénkoon teewlu ma ko waaye ne ko toppal Moustapha may sa mag Moustapha mat na xalifa mat nangam nam ko wax yooyu yëpp waaye loolu lépp li ñuy njëkkante ci waxtu wi ngir waxtaane Sëñ Abdou Lahad nga xam ne xaaja xaaj kenn du ko def ba mu ci jógee ci la daal di tàmbali li nga xam ne moo di kër sëñ Touba gi wut kër sëñ Touba kër sëñ Touba bi mu koy wut ku ne xam na ne yombul woon ndax fekk na booba lii lii urum bi ak lii urumu Touba bi urumu jumaa ji séddoo nañ ko ba ci ku ci nekk am ko ba fii kër gi nekk sëñ Bassirou ko nekk mu xam ne foofoo fi man kër waaye lépp luy tax kër sëñ Touba gi taxaw waaw luy tax kër sëñ Touba gi taxaw sëñ Abdou wut na kër googu def na ko àggoon na ci ne sama kër gu mag gii bu fekkee dem naa ba mënumaa am kër sama kër gi lay jël ñu def ko kër sëñ tubaa man ma dëkk ca forage ba fële mooy kër gii mu jox sëñ Murtala tey fii ci forage loolu këram la woon waaye bokk ci njaboot ak sëñ Tuubaa gi lépp loo xamante ni dañ ne addiyee sëñ tubaa la dañ ko koo jox ngir sëñ Tuubaa lépp lu ñëw mu séddaleeti ko seex si nga xam ne dañ doon bay ay tool ay dugub ay nangam di kii ku dikk boo ne ko nangam yu bëri ko laa am mu ne la demal na góor ñi am ñaar jigéen ñi am benn nga xam ne du jaar këram dalay wax ne la demal kër soxna moom moomi demal kër soxna may demal kër sëñ Abdou Xaadir demal kër sëñ Sooybu bokk na ci mujjam dafa jaayanteeg sëñ Tuubaa ne genn kees gun fi indeeti ma dajji ko dootul amati ba ca pom yan fa mujjee indeeg mantre dana yóbbu leen ko kër sëñ Sooybu dafa wax ne nit ni foo nekk. miraas moom mooy nit koo xamante ni foo nekk bu xëyee ñu dolleekuwaat dara kon la fa ñëwaat war nga koo delloowaat miraasaat bi ko fi Ndiouga Kébé joxe ay oto yaakaar naa am ñum ci fàtte ñum ci joxut jàpp naa ne otoom daf koo jox soxna may wala soxna moom mi ne ko du ma war ab oto doomi Sëñ Tuubaa nekk fii te waruma ko jël ab otoom jox ko soxna may xaw ma soxna moom mi jox ko ko. bañ jóg a wutewaat beneen mu yaakaar naa mu soog a jël boobu dolliwaat ko ci wala mu def ko waaye loolu lépp li ngay xam ci sëñ Abdou bëgg sëñ Tuubaa moom jaraloon ko bakkanam bokk na ci li tax mu jaraloon ko bakkanam daana ko wax sama bakkan laa ci gar loolu xamee na ne ci kuy liggéeyal sëñ Tuubaa ndekete sa bakkan daf la ko war a jaral ndax saxaaba yi ba ñuy liggéeyal yonante bi ànd ak moom seeni bakkan lañ ci doon joxe sëñ Tuubaa wax na ko nee na saxaaba yi dañ doon njëkkante dee tan na saxul mawto maaxawal kullu sa sajoha kon kuy njëkkante ak dee sëñ Ablaat nee na li tax may def loolu saa bu ma kiyee man leen sama bakkan laa ci gar nee na sëñ Modou Moussa bi mu indee sëñ Tuubaa fii ci Tuubaa tubaab yi dan ne ko xam nañ ne sëñ bi yaramam suuf du ko lekk du ko def dañ ko bëggoon a dem jël ko indi ko njaareem wala kii ko sëñ Modou Moussa ne leen man de loolu néew ma leen du am waaye loolu sama bakkan du ko fekke sëñ Ablaat nee damaa toog di ko laaj sëñ mu Musaa ne ko waaw bi la tubaab yi waxee loolu yow lan nga leen mu ne leen dama leen tontu de Ablaat mooy dama leen wax ne leen loolu di néew ma leen du am waaye sama bakkan du ko fekke mu ne boobalaa xam ne ndekete kuy liggéeyal sëñ tubaa sa bakkan waru koo fekke danga war a jël sa bakkan teg ko fële. loola tax na njabootuk sëñ tubaa gu góor gi mu fonkoon leen ku jigéen gi seex yi xam ngeen ne sëñ Ablaat lim fi woote Tuubaa gi mu taxawaat deresewaat ko bu baax a baax xam ngeen ne fu nekk rek. Euh, ña fa nekk ñoo ko melal na mu mel ginnaaw yonante bi mag ak Madina ne mu mel ñoo ko ña fa nekk ñoo ko melal te xam na ne bu nee xaadim rasul bu nee rasulullahi xaadim rasul liggéey katab suñ rasulullah mooy sëñ Tuubaa mu ne kon nag lépp lu am Makka ak dina yàlla na fii ci Touba teggin yu nu war a jox dëkk boo war nañ ko fee jox mu daal di tàmbale bëggatuma fee dégg tox bëggatuma fee dégg cigarette bëggatuma fee dégg naan sàngara bëggatuma fee dégg carte bëggatuma fee dégg mariage bëggatuma fee ba dégg tëgg sabar ak tëgg sa tama yooyu yëpp mu koy détaillé loolu it liñ ciy wax mooy seexul bi ak seex dafa war di xam liy xew li Seydina Omar waxoon ne lastu bil xabdi wal xabdu laa yes daxu ni du ma trian waaye trian mësuma mënumaa jaar fen mooy yi xew war nga ko xam bu doon keneen na noonu ma ko détayee bëgguma carte mariage daal di wax ne bëgguma tëgg tama ak tëgg sabar bëgguma ko fi carte bëgguma ko fi dorogo yooyu yëpp ay détails la yoo xam ñi xam-xam na ne noonu la mbir yi tëddee mënoon na ne bëgguma ko fi naan ñu daal ne na waaye yooyu yëpp da koo détaillé tëgg mënoon na ne bëgguma ko fi tëgg waaye dana bëgguma ko fi tëgg sabar bëgguma ko fi tëgg tama te yooyu yëpp boo demee ci tëggkat yi ñoom xam na nañ fees façon tëgg yooyu loolu day wane xam gum xamoon jamono ak mat gum matoon doon koo xamante ni nag sëñ tubaa def koo gënaloon léppam léppam léppam mësul wut dara dara do bi mu fi toogee dara loo xamante ni sëñ Abdu Lahat fee bàyyi loo xamante ni day màndarga moo ko moom amul bañ na ko ba bi doomam yi nga xam ne doom doomi boppam la ku ci nekk daanaka ñi ci ëpp ñëpp ginnaaw corniche bi nga dëkk te moo natt lépp daanaka moo ko natt li ci ëpp ci dëkk bi ab yaatuwaayu dëkk bi ci Sëñ laal waaye ku ci nekk ca ginnaaw corniche ba daanaka la la wutal kër bëgg Sëñ tubaa ak bëgg Soxna Jaara jàpp ne ni mu fi doon def mujj na képp ku ñëwati ne ko damaa am tur wala ci boppam la ko tàmbalee ku ñëw ganeeti àdduna mu tudde Sëñ tubaa bu dee jigéen mu tudde Soxna Jaara mujj na képp ku may laajate aw man ñaari tur laa am mooy sëñ Tuubaa ak soxna jaara loolu jàpp naa ne bëgg sëñ Tuubaa màndargaal na ko ci lépp jàpp ma ne tamit ëllëg yomal xayaam kenn dina ko ëpp lu mu seddu ci sëñ Tuubaa ndax ni mu liggéeyale sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa xam ne dammi wa ahli wa awlaadi fi daaxu loxo abdan loxo xadima loxo muskaane lii loxo sanada nafsi wa diini suma ahli wal walat wa maskani lakk wa diixatun abad loola lépp sëñ Abdu noonu la ko defoon lépp doomam yii bi mu fiy jógee daanaka ñu néew ñoo ci am kër loola dañuy fàttali Omar ibn Abdou Aziz Omar ibn bi yàlla tolloo mu toll ci sukuraat di bëgg a dem dafa am ku dikk ne ko yow de yaa yore nguur gi te sa doom yu ndaw yi nga xam ne danoo toll ci ndaw nga bind benn bataaxel bàyyi fi bu nu màggee ñu mën cee am sa alal ju nu mën a kii mu ne ko ah man de ñaari doom rek laa am ñaar doom ju jub ak ju jubadi ñaari doom yooyu nag moo am ku jub. bàyyee ay mbiram yàlla laa ko bàyyee ku jubul nag duma ko fi bàyyeel alal mu cay def ak jubadi te lii ma leen di xañ nag du seen àq sama seen àq la te daa di woolu doom yi doom yi ñëw mu ne leen yéen ñiikat xañuma leen seen àq seen baay dafa tànn ëllëg yomal xiyaam bisub taxawaay bu metti ba ak xat-xatloo bu metti ba ak jafe-jafe yu metti yi mu tànn wéet dëkk ak yàlla moo tax mu bëgg a tànn loolu dafa bañ bàyyi leen fi alal yu ngeen moom ëllëg muy doon ab taxawaay ca moom waaye nag bàyyee naa leen fi yàlla yàlla nag kenn du ko bàyyee mbir mu daal sëñ Abdou bi muy dem loolu la wax ay doomam ne leen bàyyee naa leen yàlla yàlla mi nga xam ne lu mu sàmm du ruur te dana ñoŋ kon bàyyee naa leen moo tax doomi sëñ Abdou Lahat joo ci gis ku ci nekk alhamdulilahi rabbil alamina ndax moom dafa wàkkirlu woon ci yàlla sëñ Blaat lu nekk daj na ko ngir liggéeyal sëñ Touba ay xat-xat yu nit di daj rek ngir ñu gàllankoor la xam ngeen ne ku fi jóg di liggéeyal ku baax am na ñu taxaw ci sa wet ne la loolu du fi amee waaye sëñ Blaat ay guddeem ay bëccëg gàllankoor ko waaye la mu waxoon ci njëlbéen nga ne sama bakkan laa ci teg bakkanam la ci tegoon ngir liggéeyab sëñ Touba bi mën a sotti kon jàpp nañ ne nit la koo xam kenn mënta waxtaane ay jëfam ci wenn waxtu wala ci yenn jamono waaye bokk na ci doomi Serigne Touba yoo xamante ni ëllëg rang bu njëkk ba ni sëñ Tuubaa di woote di fay ca rang boobu kenn mënu ko caatee dugg du ci at nag moo ko ciy dugal waaye jëf moo ko ciy dugal bokk na ci ñi nga xam ne tamit li mu yéene woon boppam dong la yéene woon ñëpp ñu xam ne sëñ Tuubaa ku nu war a liggéeyal la ku nu war a kii la nekkoon fi nag la mu waxoon ci kàddu yum fa mujjoo bokk na ci yu mujj ne kat sàmm ak waggar moo ma fi war nit nag bu ko sàmm ak waggar waree waratut ak nelaw ay guddi warat nelaw bëccëg bokk ci koo xamante ni ak njubi tamit def ko ñoroon ba ittee leen ko ba loolu doonoon ay itteem gis ngeen ne daana wax sax nitu yàlla ni muy rëcce wax nee na daana wax naa man yenn sax nit dikk di ma déy fii di ma wax da may defe ne sax am ñu naa ma day fen de day fen waxul dëgg loolu may defe ne sax mi ngi koy dégg kon nag kooku yàlla nañu ko yàlla fayal ñu ngi jub ab bis boo xamante ni bisam la bi mu gane woon àdduna ñu ko ci fàttali ak di ko ci ñaanal mu doon lépp amul genn kër gu nu ma sa bind bi fii xam ngeen ne kër sëñ Tuubaa ci jamonoom la xew nit ñi dañ daan jënd kër ngir jox ko ko addiya boo dikkee mu ne la ma xool lu nekk ci kayit bi mu gis ci aw turam mu ne la demal boo demee ñu dindi sama tur ñu def ca kër sëñ Tuubaa bi mu fiy jóge li nu bàyyi ci alal lu néew a néew lan fekk ci poosam te ku nekk xam na ne moom moo njëkk woote ab milliard ci yoonu sëñ ki njëkk a woote milliard sëñ Abdou Lahad la ki njëkk laaj milliard mu mat bokk na ci ni mu daan wootee lu ama am solo la ikkam mu woote daf koo mënoon ikkam bu mu daan kii taalibe yi am na ci at mu muy woote ne leen man kat xam naa ne at mii at mu nanguwut la ndax sama mbayam ren nangam ak nangam la mu daaw moo ko ëppoon waaye xam naa ne xol bu nangu moo gën nawet bu nangu te yéen seen xol yi nangul na sëñ Tuubaa bokk na ci mi tamit buy woote plan bi dana laaj li mu war a liggéey bis ba la ca toll mu ne loola kat sa waxtaan naa ci ak ña ko war a liggéey contrat bi lii la wax nan ma ne ma nangam moo koy liggéey wax nan may tamit na ma nangam lañ koy liggéey ci yu at loolee tamit d'accord naa ca wax nan ba àggal lii nag laa leen avance nangama ci des kon maa ngi sant maa ngi ci jël nag li ma am lépp def naa ko ci lu ma waaye jox dinaa ko ca defal xoolal woote bu sell boobu ak ak ak maanaam lu leer loolu ci boppi nit ñi koo xamante ni nee nga nangam la nangam lan la waxante contrat ba ña koy liggéey nee nañ ma waxtu sangam danañ ko àggale waxtu woowee tamit avance naa leen nangam balaa boobay tamit nangam man nag dugal naa ci sama nangam ku ma jox nag ma defal la ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noonu la daan tëje ay waxam loolu moo jeex kon ñu ngi dox daje sëñ Abdou Lahad dinañ ci dellusiwaat sax xam naa bii du doon benn jataay bi waaye dinañ ci dellusi yu bare bare ndax kun war di jàngale la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp Seexuna moo nekkoon ci caméraman bi soxna aw moo émission bi soxna Xadi Ñang moo ko doon monté wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu